waaw ah. naka yite yi nag ah, waaw sant yàlla bu baax kay coonaa mbaa ci même tool yi alhamdulilah tool yi day daanaka kii na moom doy na waar lool ah, ni kii rek man démb laa pare mbàcc waaye dégg naa kilo gerte de ji soo bëggee jaay li jam du bëri ah waaw lay wax ren nii lu mittee ma dégg kat ñu ne balaa nga am dara faa nga bàyyi ba noor bi jub ak yooyu. ah waaw waaw ba ba nawet bi xaw a jigéen ñi gën a yëg waaw. dama ci xaw a jaaxal. doy na waar doy ah, su ma ci xawee ay fukki kilo yooyu. waaw xaw cee tab tabal am. am lu ma ci faj. waaw mooy ay gudd yu ndaw ndawaan ak yooyu. waaw ci liggéey bi yooyu. nga segal ci sax nag. nga segal ko def ci diw li ci des nga raakal ko gone kii yoo ko. waaw roñaguma sama ngooñ ma de waaye. waaw ah suba de laa bëgg commencé roñ ko. ah waaye pëlis ni ngi naan rutut rutut ci dëkk bi. ñoom kay xaw démb damaa dan maa takk taxawal laa la wax. Ah. danoo mujj sax di ma solle sama sama lama lama. loolu de bëgg nañ cee xam euh, de def pexe. waaw dañuy def rek ah. pële ma ngi si sa gerte ba. pële lan pële. pële tey pële tey kulle ay waay dafa gën a limoon saaka waaye sama ngooñ ma jeex na di ay waay di suñu ablaay xoolal ngooñ waay suñu ablaay lii boo ko bàyyi mat na ñetti nga suñu ablaay ay waay suñu ablaay ngooñ waay ay waay ji lépp toonal suñu ablaay ngooñ mi waay ji ah waay waay waay suñu ablaay lépp toonal waay waa lii li li ci pexe ah lu ci di pexe pëli pëli boo reyanteeg ñoom ñu boo xëy ñu gor la loo ci mën a dégg naa côté yi am na ñun fi gor moom. ah waaw am na ñun fi gor de. xam nga nu ñuy defar de. ah moom kay ñu dem jëppal ba ñu dem jëppal ah, ba suñu dem jëppal ba. waaw bilaay bi seytaan raji hii. daa yi daa yi ñëw nañ waxoon naa sa naa waxoon naa sa tool ba moom. moom moom moom moom moom moom moom naa waaye bu ñëwee dinaa ko arrangé ba xam nu may def ak moom toj xam xam naa moom xam naa moom bés bu bés bu lépp si di ngay mu di ngay lépp daay daxal moom xamal naa yaay baaxal baax am ni mi ngi fee de fekkee ne rek barki wala hotel